ndax weeru koor moom suñu sooy bi léppam euh, ci la ci la ci la ci la ci la ci la feeñoon jamono waaye ci la wuy ji boroomam njaboot gi yëpp di waajal juróomeelu fanu koor gi yemoog woon bés bii ku tedd kii di sëriñ Souhaïbou Mbacké gane woon àdduna si weeru koor ci atum wolof junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom alxuraan ci weeru koor saa yu agsee sëriñ si Ahmadou Mbàkke mi ko fi nekkal ak mboolem ay rakam jàpp ko di ci daje di ko ci ñaanal ak di ko ci fàttaliku ngir mën a fàttaliku ay jikkoom yu tàdd yu mag yooye ngir man cee jariñ waaye julli ñëpp man cee jariñu màggal gi moom day màggal goo xam ne màggal gu am solo ci ñun ñëpp rek suñu sang bu ndax suñu sang bu day waat tànnifeef tànnif tànneefu suñ Tuuba tànnefu yàlla bu yàlla jàll ci suñ suñ Seexul Xadiim kon nag ñun bu bokk buñ ko watal bis dañ ko war a waajal bu baax ndax suñu sony bu kenn ku ne ba sañoon bokk ca moom ndax istuwaaram ci yoonu murit ak ci tarix yëpp sax ku ne xam na ko ndax li ci suñ suñ mbégte rek mooy képp koo xam ne ñu ngi tudd ci Touba ci yoonu murit rek ci daal suñu sony bi nga génnee benn rek sëñ Bassirou Abdou Khadre ko yoonu murit yal na fi yàlla te yàggal ko te wér ci bàkk sëñ Touba kon nag suñu sony bi ñu ak njabootam bii ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax di ci jiital njàngam alxuraan ndax moom lu doon rek alxuraan lu ko suñ tubaab féetloo moo fi doon alxuraan kon nag ñu ngi koy waajal am ci mbég ak kontaante ku tedd kii nag jàpp nañu ni mission bi yëpp si àdduna nekkul woon lenn lu dul teg jaam yi si yoonu siraatal mustaqim islaam gu sax dàkk te wér jëfam ak ci xam-xamam kenn nag tablewul woon ni Serigne Souhaibou Mbacké yoon wa Serigne Touba bàyyam bu baax ba tewoon tànkam wàccu ko woon dañ daan sëñ bi danaan joxe ndigal saa su weeru ko weeru koor teroo daara yi nga yi nga xam ne mooy daara mooy mooy daara kër gi commencé ko daara sëñ Suhaybu nekk ci kër gi ak mbooleem daara yoo xam ne rek daara sëñ Suhaybu wala yi nga xam ne ñoo ko sos sëñ Suhaybu leen jàngal bu weeru koor teroo bis bu set ñu di ko def di ko def ba jeex bu weeru jeexee sëriñ bi soog jàpp benn bis boo xam ne da ci woote mbokk yëpp daje ak mbokki taalibe bi yëpp jàng ji alxuraan fàttaliwaat ko waaye togg ñàkk sàkk ci ay sarax waaye fàtt fàttaliku ci ay jikkoom ak ak dundam noonu ma ko waxee loolu nag mooy dox ba léegi. fii nag si pencum Serigne Souhaibou bu kër gu mag gi xalifaam bii di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké di recevoir chaque jour ziar yi waaye nag lu daw yaram ndaxte doomam bii di soxna maam say Mbacké moo doon amal ziaram ci délégation bu ma mu doonoon jotaay bu yéeme te daw yaram nekki jotaayu bànneex ci diggante waajur ak ay taalibe bàyyi ko fu nekk tey jii nag ñëw ci bés bu mag bi ñuy waajal dem sax nag bay fàttaliku ku tedd kii di Serigne bu Mbacké euh, monsieur Sala Ndiaye euh, victime de guerre euh, blessé de guerre ancien combattant taalibe Cheikh Mbacké Souhaïbou sama tànk si kër gi si kër gi la bokk fii laa nekk depuis presque vingt et quelques années depuis Cheikh Serigne Souhaïbou ah ba léegi maa ngi fi maa ngi nag Touba Samali ginnaaw barke ji si tool yi magal gi moo tax ma ñëw fii pour toppatoo gan yi recevoir leen. Cheikh Diagne taalibe Serigne Touba euh, jigoon Afrique du Sud ñëwoon fii Touba suñ borom bi ma womat ba dugal ma ci kër sëñ Mbacke Cheikh Soin euh, wax fa dëgg yàlla wax fa dëgg yàlla euh, depuis bi ma ñëwee ci kër gi ba léegi. vraiment man damay toog sànq rek wax naa ko fii nee naa man musuma xam ne kër sëñ Souhaïbou bu la mel musuma ko xam te pourtant murid la ma juddoo ba léegi damay ñëw Touba sama waajur góor murid la sama famille ñëpp moom nag ñëw naa fi lépp ay ma ñëw toog ni ci wetam mu ne ma xëccal musóor gi xëccal kol gi kun naan maam Baal bu so li ma xëccal mu sa bopp bi ma muur ko sëgg mu ñaanal ma daal di muuñ ñu laa fàtte ci moom boobu nag laa ko mujj gis tamit nag. sëñ bu. xamoon naa ko dana ko ziare si booba temps sëñ Abdoulahat Soye euh, moo fi nekkoon. loolu laa mën xam si moom dana ma wax waaw Ndiaye naka di def ba génn si avion di daanu kii moo bondeelu si kawam won ko ni ñuy kii waaw bu bu tegtal yooyu daal ak mandarga yooyu. waaw waaw tëb naa avion plusieurs fois tëb naa avion daanu si géej daanu si garab soo soo de nuit soo d'obstacle seau de mer hein, pour euh, armée bi def na Casamance surtout ay Youtou Efop Diatakunda Kabrousse Samine Tanaf Kouros Yaar bon des années j'ai j'ai mais j'oublie léegi xasaayit xasida rek moo nekk sama bopp waaw ñun ndax suñu son ma ci xam naa bi muy nelaw moom magam jëmm laa ñëw suñu blaan nag féete loolu tubaab bi la li ma yi bëriwut la daa ma fi ñëw li ma xam lépp daal suñu blaan laa xam waaye daal xamoon nañ ne moom ku fi nekkaloon yàlla la ku nangoon a jàmb yàlla ku nga xam alxuraan rek moo ko joroon ak yàlla ak julli. wane ku ne Serigne Souhaibou Mbacké wax xalifaam bu tedd bi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké am yërmande loolu si talibe di leen di taxaw saa su nekk bàyyi leen xel yi leen seede jóge si ñu ko xam loolu. bëgg lool ci siyaare gi ma ñëw di siyaare Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaibou di ko ñaan yàlla bàyyi ko fi maa dëgg wér fan la gudd ci bàkk Serigne Touba. aada ji dama ko xeeb sax ndax koo xam ne lépp loo am rek. ginnaaw yàlla moom la moo la boole ci sëñ Touba di loo xam ne nii sëñ Touba képp ko ci xas boole rek euh, amatoo fayam. man daal sama addee xarit boo xam ne moom it euh, sëñ bi xàttam la sëriñam la waajuram la fu mu toll rek mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di jàppale. waaw dama saay saayoon daan def lu ma neex waaw bu njëkk sax ba ab bi ma nekkee mu dama saay saayoon mais sëñ Cheikh Mbacke Cheikh moom mooy jël yóbbu ma samali jox ma mont nit ñi may nodd si jàkk ji waaw depuis treize ans maa ngi fay nodd bàyyi nag yu bari waaw jublu penku xam lu bari si mbiru sëñ Touba ngir yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax benn ñun ñi ci loxoom ci lan yaroo ba wattu alxuraan jàngal fi ay nit ba nu wattu fi alxuraan man ci sama jëm bopp man li ma fi jàngal bañ mokkal mënumaa xam lim bi sama morom noonu keneen noonu keneen noonu te bu fi mu ne nii dinaam yi boobu daara ji ba mu ko yoree ba léegi day yokk waaye dara wàññiku bitim réew laa jóge woon am loo xam am lu nekk si man ma ñëw fi mu téyel ma boppam ama toog yàgg na naa fi neuf mois instant bi gis nga tam si non moom moom moom man fu ma toll rek xam na ko loolu lu ma leer la aw ma dara lu may sikki sàkk ci moom aw ma dara dara dara dara dara lu may sikki sàkk sëñ Tuubaa su ma demee ba ba am lu may sikki sàkk ci moom rek mais boo ma ma ma génn Touba. Cheikh Mbacke Seye bi moo tax may noyyi suñ Cheikh Seye Mbacke Seye bi. muy waajuram bu taxaw njabootam bu yiir ak njabootam di sama xarit lool lool fonk ma bëgg ma jàpp ma jàppale ma kon man lépp lu ma ko fa ci àddina lu ma xeeb la da lu ma koy jéem lu ma ko mën a fay damay jéem fa lu ma ko mën a fay ndax li ma la ma wax mënu ma mënutuma ko fayati ci kaw suuf. daaray Serigne Souhaïbou Mbacké doon université yi ci xarañ tàggat gu wér ak réussite bu lay topp sa giir dund fépp nag si àdduna bi tout tànk ñu ngi fay jógee ñëw ngir sàkku si xam-xam seen ndigalu waajur. Euh, gone yi fu ne la ñuy jóge fu ne la ñuy jóge ndax fi ne nii ay soose bari na fi lool jóge ba Casamance. Hmm. Guinée sax am na fi toll na jamono Sierra Leone sax am na fi ñu jóge Sierra Leone fépp am na fi waaw ñëpp ñëw ñooñu lépp lan la dégg dañuy dégg ñu ne daara ji jàngale am na fi yar am na fi ñu ñëw te boo ñëwee bala ngaa dem ci daaray tarbiya faw nga jaar ci daaray alxuraan suñ la nattee xool la seet la seetantal xam ne yow mën ngaa mokkal alxuraan da ngay jàng alxuraan ba mokkal ko bind kaamil door a dem ca daaray tarbiya ñu tarbiya boo tarbiya waa tey bu dikkee bu lu demee ba sëñ bi war laa wàccee nag bu ñëwee ci la nga ñëw ñu def la li ñuy wax tarxiya doon laa tasfiya ñaanal la nga dem nekk sa bopp. màggal gi édition 2018 njaboot gi di koy waajal ci ndigalu Serigne Cheikh Say Mbacke moo waral kenn si njaboot gi di soxna maam Say Mbacke moom it desul si ginnaaw ginnaaw bi nemmeekoo ni si Mariana Sis ci këram dina fa amal màggal gu mag kilifay àdduna yi autorité administrative yi responsable politique yi mu mbokk lang gi taalibe yi am di jàmm yi ñëpp jóge fu nekk mu mel ni édition 2018 bi soxna si dafa fas yéene fàttaliku maamam si mbégte ak ndigal mu jot ba tax. cérémonie bu mag di dinañ ko fa amal ci Madiana 6 jàpp ni foofu sax nag dina doon célébré yoonu kilifa yi.